ministre de l'intérieur dafa daal di lajj ci liste électorale yi ndax dafa romb fi ko yoon rëddal moo tax recours waa yeewi askan wi dina am mucc muy lu gestukat bi docteur Abdoul Aziz ci constitutionnaliste di xamle. ministre bi pour dafa dépasser ses pouvoirs il a outrepassé ses pouvoirs. dafa am période de régularisation ak période de vérification da ko dépassé. argument boobu rek day débouter le ministre. parce que décision bi mu jël moom. c'est inédit. te kenn xamul lay si les partis là ku ci d'accordul après dem def attaquer sa morom noonu lay demee en matière électorale liste suppléant ak proportionnel yu ñu gàntal tamit amul dara lu mu mën a yàq ci élection yi ba tey sëñ bi Mbodj di ci dikk mais le fait que justement ñu amputé ta liste proportionnelle ama ta liste suppléante amoo liste titulaire nga am liste titulaire loolu amul sens et c'est pas le ressort de la jurisprudence les gens semblent s'appuyer sur la jurisprudence Fandène mais Fandène ça pas de ça c'est la liste majoritaire et la liste proportionnelle c'est une liste campagne sans mu am une liste majoritaire c'est ce yeewi askan wii ak yeneen fu muy mujje ci loxo conseil constitutionnel la daa di des ginnaaw ay recours ci wàll wii yu mandataire yi daa di tekk ci taabalam ngir ñu mën a bokk ci élection législative yi comme nu mu waree.